di leen ziyaare di rafetlu seen taxawaay waaye tamit di leen sant rawatina sunu waajur yi nga xam ni ci suba ba nëgëni ñoo ànd ak ñun liggéey bi liggéey bi nag comme nañ ko baaxoo defe rek ak cant la goo xam ni at mu jot daara Sahadatou Talab bi nga xam ni moo regroupé élèves yi ak étudiants yi ak travailleurs yi ñoom ñoo koy amal at mu jot ngir di ci sant Maulana Seexul Xadim ak di ci sant sunu borom tabaraka wa taala ci xéewal gi ñu ko xéewalee comme niñ ko baaxoo di defe nag ca suba ba nëgëni ñu ngi wéyal programme bi ñu toll nag ci waxtaan wi conférence bu njëkk bi nga xam ni moom la ñu war a amal ci kanam tuuti tamit ñu amaat beneen conférence mooy bu ñaareel bi waxtaan wi nag dañ koy jëmale daanaka ci jigéen ak réseaux sociaux yi nga xam ni ñu ngi koy jëfandikoo lu mel ni internet bi whatsapp yi ak facebook bi nim leen désacraliser waxtaan wi tey foofu lañ koy jëmale mu mel ni nag daanaka booy seet daaw ci waxtu wi waxtaane woon nañ jigéen ak lu aju ci moom ak ni ko yàlla fonke ak cër bi nga xam ne yàlla jox na ko ci lislaam ak yamale gi nga xam ni yam yàlla yamale na ko ak góor ci bu jëfee lu baax ak ci bu jëfee lu safaanu loolu yaakaar naa daaw waxtaane woon nañ ko ba ku fi teew rek am nga bu yóbbal bu doy sëkk buy wane ni jigéen li yàlla dig góor rek moom la dig jigéen ci lu baax bu ko defee waaye tamit lim tëkkoo góor moom la tëkkoo jigéen loolu waxtaane woon nañ ko daaw jigéen sunu borom da ko def muy wurus ngalamam wurus ku ko am da nga koy denc fa nga gën a fonk yàlla nag ci kaw suuf mel na ni jigéen mooy wurusu ngalamam kon bëggut jigéen di xotti sutul boppam sunu borom daa bëgg jigéen suturaal boppam waaye nag ñu dem ba benn jamono yer yu bees xew nga xam ne jigéen ki dana ci mën a wane boppam man cee wane ab taaram yooyu yëpp di ay yàqu-yàqu yoo xam ni matale gu matale tax na ñu dem ba jàppewuñ ko muy dara Sëñ Tuubaa day wax ci Fatxul Manaan ni al musibatu isa mat hanat maanaam musiba aw ñaawteef su demee ba ñëpp di ko def day mujj woyof ci xolu nit ñi doot ñu ko jàppe muy dara kon looloo tax tey ji ñu tànn thème bi ngir yee ci jigéen ñi waaye tamit yee ci góor yàlla yi thème bi nag ci gàttal ci ñu tànnoon mu war ñu ko defal sëriñ Murtala Silla lañ koy wax sëriñ Murtala Silla mi ngi dëkk fii ci diwaaru Touba jànge fi alxuraan waaye tamit jànge fi xam-xam ci sëriñ As Jaxate ak yeneen i boroomi xam-xam jóge na fi tamit jànge Maroc ba am fa licence ñëwaat fii ci sunum réew doon fi ab jàngalekat professeur la ci cycle moyen waaye tamit professeur la tamit ca al azhar ma ngi fa joxe ay cours waaye tamit jànge na ci sëriñ Abdourahman mi ngeen xam ñëpp xam ko ci ràññikoom ci xam-xam kon ci gàttal sëriñ Murtada moomu moo ñuy defar waxtaan wi kon ñu ngi ñaan sunu borom kàttanal ko ca dëgëral ko ñun tamit ñu ngi ñaan sunu borom boole defal ñu ak dégg ak topp def ci ñi nga xam ni bu ñu déggee lu baax alladina yastamiuna al xawla fa yattabiuna ahsana yal na nu yàlla boole ci ñooñee kon sëriñ bi bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وخير خديمه وأمته أجمعين mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen lorkel bu baax waaye di jiital ci nuyoo bi waa daairatu sahaadatu tulaab nga xam ne moo làmboo jàngkat yi ak jàngalekat yi ne ci ci dëkk bi waaye it di yëkkati nuyoo bu tedd bu sell di ko jëmale ci kilifa dëkk bi nga xam ne moo ne ci boppu njabootu waa kër borom daaru gi yépp muy Seydina Abbas Mbakke yàlla na ko yàlla dollee sàmm guddal aw fanam te defal ko wér waaye noonu lañ koy ñaanale mboolem njabootu borom daaru gi yépp di nuyu nuyoo bu tedd ak ay ñaan di ko jëmale ci ni ko Cheikh Moustapha waxe léegi Cheikh Abdourahman Sëñ Abdul Quddus nga xam ne lu bari ci suñum njàng xam-xam defe nañ ko ci moom jële nañ ko ci moom di ñaan yàlla moom it mu dëgëral ko ak mbooleem njabootu borom daaru gi yépp di nuyu kilifa yi ne ci jataay bi yépp ñu jiite daara ji jàngalekat yi mbokki murit yi nga xam ne ñoo taxawal lu am solo lii ak soxna yi ak ñi teew ci jataay bi yépp xam naa ni ko sëñ Moustapha waxee waxtaan wi day jëm ci jigéen ni ko lislaam terale ni ko lislaam màggale ak jamonoy tey jii ni mu delloo boppam ci ginnaaw te li ko waral rek mooy yii ñuy jëfandikoo mu jëm ci ni ko sëñ Moustapha waxee muy wasaayil i'laam yi muy lépp lu jëm ci xeeti jokkoowukaay nga xam ne dañuy jaar ci internet bi te buñ ci ñëwee dana gën a leer insha allahu taala moo tax waxtaan yi ngir njëkkante waxtu yi rek dañ koy xaaj ci ñetti xaaj xaaj bu njëkk bi lislaam bala ngaa xam ne daa teral jigéen ñu wax la fa jigéen nekkoon démb nu jigéen meroon démb suñ ci waxee rek da ngay jàpp ne sax li ñuy wax ay léeb la ca loolu mbooleem ñi gëstu ci taarix ci histoire saxal nañ ko moo xam jullit yi la moo xam yeneen diine yi ak yeneen borom xam-xam yi yépp dëppoo nañ ci ne démb nii lañ jàppe woon jigéen mën nañ ne nation bu ne ak nam ko jàppe woon bu ci gën a daw yaram rek nga ne bii la ci ñoom ñëpp nag ba ci arab yi nga xam ne sax ci la lislaam feeñe ñoom génn ñu ci mooy tomb bu njëkk bi tomb bu ñaareel bi moom day jëm ci lislaam nag yenn teraanga yu rëy yi nga xam ne jox na ko jigéen buñ ci tuddee yoo xam ne tudd ci tuuti rek ak jigéen nag nim delloo boppam comme waxtaan yépp dafa jëm ci soxna yi noonu rek la mën a demee muy niñ delloo seen bopp ci ginnaaw ci jamonoy tey jii loolu nag suñ boroom ci boppam moo giñ ci jamono ne wala asri inna linsaana la fi xusrin moom mi moom lépp moo giñ ci moomeelam ci jamono wala ci waxtu takkusaan ne man yàlla day giñ naa ne doomu aadama yépp ñu ngi ci perte bu yemoon foofa dana metti lool waaye dafa daal di settantal daan ne bam des illa allasina amanu wa amilu saalihaati wa tawaasaw bil xaq wa tawaasaw bi sabr bam des ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla gëm yàlla rek doyut di jëf lu baax waaye yemuñ ca dégg jëf lu baax dañuy dénkaane muñ ndax muñ moom du sàppi mukk démb ba tey ba ëllëg dañ koy soxla waaye watawaasaw bil xaq di dénkante dëgg ca dénkante dëgg mooy lii nii gis nañ ak yàqute goo xam ne nii mi ngi tasaaroo ci jamono ñu di ko waxtaane c'est di ci di ko teg ci dëgg kon day mel ne ñun mën nañoo santaat yàlla ne delluwaat nañ ca aaya ba ginnaaw bañ gëmee yàlla di góor góorlu it di jëf suñ kemt lay kàttan ci lu baax yàlla na ko yàlla nangu waaye it di góorgóor yi ci dénkante dëgg ndax dañuy faral di wax naan baax moom ku ne la jig rawatina jigéen borom xam-xam yi dañuy wax naan góor soo baaxee sag baax sag baax la yem yow waaye jigéen su baaxee ak baaxam du yem ci moom faw dana def ay jeexit ci li ko wër moo xam ay doomam lañ moo xam ab usraam lañ famille bi mu nekk faw rek ak baaxam dana jàll sun boroom bi mu bindee àdduna bi bind asamaan si mu rafet lool ak biddiw yi xalaqa samaawaati wal ard fii sittati ayyaam bind asamaan si suuf si bind géej yi nga xam ne mboolem taraangay àdduna yépp da koo bind soo ko bind doomu aadama malaayika yi sax li ñuy baax baax baax suñu borom soob na ko ba malaayika yi laajal ko ne ko waaye wow lu rafet lii nga bind nii ñu fa jëm mu ne leen nit laa fa jëme malaaka yi ci xam-xam bi leen yàlla xamal ñu ne ko ah du nit moom mooy tuur deret nit mooy tooñ nit mooy defante lu ñaaw ak monde bu rafet bii nii nga def ko defal mu ne leen an bi uuni bi asmaa'i haula daal di joxañ ci àddina bi ay mbir ci àddina bi laaj leen ko ñoom malaayika yi ne leen lii lum doon malaaka yi ne ko subhaanaka laa ilma lana illa ma allamtana innaka anta al alimul hakim lu mu joxañ rek malaayika ne ko subhanak laa ilma lana illa ma allamtana innaka anta al halimul hakim tuub nañ sag sell ñun day xamuñu dara lu dul li ñu xamal mu ne aadama am bi uuni bi asmaai haula wa allama aadama asmaa kullaha suñ borom ci coobareem mu xamal doomu aadama tur yépp nag daan ne doomu aadama waxal malaayika yi lii nu mu tudd mala doomu aadama aadama suñu maam ñun ñun ñëpp tàmbali lii géej la géej gi ci biir nangam ak nangam lii jaww ji la lu ne mu toj ko rek lu ne lu ko yàlla wax rek mu wax faram fàcc ko bu baax a baax a baax wax jërëy lool ba suñu borom ne usjudu li aadam acca dug leen sujjóotal aadama fa sajada al malaikatu kulluhum ajmaun malaayika yëpp jëfe ndigalu yàlla laa yaxsuna allah ma amarahum ñu daal ne groupe ci suuf su jootal waxuma su jootal yàlla de su jootal aadam illa iblisa aba ba mu def seen njiit ñoom malaayika yi borom bi ne ka ne taxaw ne sugg nanguwutu su joot mu ne ko malaayika yëpp su joot nañ yow mii lu la tee su joot yow yaa waroon a njëkk su joot yaay seen njiit aba wastakbar mu ne kii mbërki dee mu nga ko bind ci suuf ban bu xeeñ te ñun nag ñoo bind ci leer nan laay jóge ci leer di si jootal suuf suñ borom ne ko boo ko defu dey danaa la dàq mu ne ko baye boo xuloo fa ak yàlla xuloo bu tàng suñ borom dàq ko mu bërëxal ko ñaari kàddu nag yoo xam ne nee na ko nag danaa leen topp sonal leen seeni sët man saytaane du ma leen bàyyi mukk fu ma jëm ëllëg ci xeeti mbugal danaa leen fa yóbbaale suñ borom it sànniwaat ko benn kàddu tontu ko ne ko ba mu def sama jaam yi sellal loolu moo ñu jàpp ñun doomu aadama ba tey foofu la coow li tàmbale nag am na ay xadaaraat ay civilisation yu ay ay ay ay umam ay nation yoo xam ne njëkkoon nañoo feeñ ci jamono yoo xam ne bu ci gën a dofe rek na ma yàlla jéggal nga ne bii la bu ci gën a sàggane jigéen da nga ne bii la masalan alxadaaratul yunaniya nga xam ne xadaara bu bu bu bu maanaam civilisation bu Grèce nga xam ne bokk nañ ci ñi gën a yàgg ci àdduna gën ci riche histoire riche histoire Grèce yi ñoom bokk nañ ci ñi gën a yàgg ci àdduna bi gën ci riche histoire nga xam ne yonent yu bari Grèce yi fekk nañ ko boo demee Grèce tey danañ la wan ay tabax yoo xam ne nii am na nangami nangami junni at ñoom day dañoo gisee woon ne jigéen lu xeebu la moo tax jigéen bi ne bala nga koy wax boppam da nga koy wax la amoon démb ñoom Grèce ñooñ dañ ne jigéen daal mbindeefu xeebu la mbindeef la woo xam ne sobe la mbindeef la woo xam ne seytaane la mbindeef la woo xam ne dagan nañu di ko yóbbu ca marché bi di ko jaay comme ni ñuy jaayee marchandise mindeef la moo xam ne nii bu ko ke bu mu bu mu laaj droit mukk lu ko neex la ñuy jëflante ak moom ba tax na marché Grèce bi Grèce amoon na marché spécial boo xam ne ay jigéen lañ koy jaay comme ni ngay déggee daral ñu naan la daralu xar yaag daralu bëy yaag daralu nag ya amoon na marché boo xam ne ay jigéen lañ koy jaay ku jur sa doom mu nar laa sonal foofu nga koy yóbbu ñu wanteeral la ko ñu jox la xaalis bu bari nga dem sa yoon ku bëgg a bànneexu ci jigéen na ngay ñëw fay xaalis bu bari ñu jox la Grèce lii lañ jàppe woon jigéen loolu moo tax bu yëf yi demee ba tasaaroo ba tasaaroo rek suñu borom yónni yónent alxadaaratul farisiya bu dee côté ba ca Faris ba ñuy wax Faris nga xam ne tey fi la Iran nekk ñooy Perse yi lañ leen di wax ñoom seen histoire li ci gënoon a fës mooy ay nit yi bañkat lañ woon Iran bu njëkk ba tey sax day mel day feeñ ci ñoom naka jëkk ay xeexkat lañ woon ay bañkat lañ woon comme ñoom dañoo dañoo nekk monde boo xam ne monde guerre la monde boo xam ne xeex la ca jigéen du xeex ku fi jur jigéen bi yaa yaa yaa ko yëg waaye boo ko góorgóorlu nga jéem fee jur góor suñ dëkk bii bu ñu fi kenn jurale jigéen ñun suñu histoire mooy histoire guerre histoire xeex loolu lañ xamee Perse yi wa isaa busira ahaduhum bil unsa zalla wajhu bu kenn amee doom rek la ñuy njëkkee mooy baa góor la bu nee jigéen la nga gis mu commencé di jooy way fu ma jëm jigéen la jur ah kii daa bëgg ma di ko dundal di ko jox muy lekk di ko jox muy naan te ñun chaque mu chaque année ñu ñu def guerre bu mag te ñoom duñ dem guerre gàcce la ma bëgg a teg perse yi noonu lañ jàppe woon jigéen mooy dañ da dañ ko daa dañ ko daa ñaan yàlla buñ ko am te buñ ko amee dañ ko daa dañ ko daa dañ ko daa gaafal kon daanañ gënalee ne góor moo leen gënal jigéen ñoom perse yi boo demee ci civilisation Roumania mooy fi Europe nekk tey Italie ak li ko wër yépp ñoom daanañ def ay séminaire di waxtaane naan ndax jigéen am na ruu ñoom ñoom fu ñu ci wax rek nga ne ndax jigéen daal moom am na ruu am na xel waaw ni jëmm ji mel est-ce que ànd naa kom xelam ñoom ci seeni téere ak seeni diine yi nga xam ne waxuma seen diine ya bàyyi ko ci yàlla nag seen diine yañ yore nga xam ne ñoom ñoo ko ñoo modifié la leen neex ndax lu bàyyi ko ci yàlla moom du xeeb kenn rawatina doomu aadama moo ne wala xadd karam naa bani aadama lañ yor daal moom nee nañ jigéen ni nga yore sa sa sa yar di dóor sa mbaam di diri soo meree mën nga koo def jigéen ñoom noonu lañ daa def amul ku ko taxawaloon di ko kaasal boo demee ci civilisation assiniya mooy sinwaay ñoom moom foofu la wax ja dëppee ñoom nee nañ almaratu sajaratun masmuma nee nañ jigéen garabu tooke la garab la goo xam ne nii mën ngaa gis garab gi mu meññi rafet lool waaye boo ko ñemee tooke la day rey bu leen jege jigéen sajara masmuma garabu tooke la ñoom moom loolu lañ wax rek mu génn ci boo demee ci alxadaaratul hindiya ci indo yi ñoom it ñoom niñ jàppe woon jigéen mooy ñoom ba léegi sax daanaka biñ bàyyee loolu yàggut bu borom këram faatoo bu ko njëkkee faat bu ñuy lakk borom këram dañ koy lakkaale def ko dóom bu xoolee ba borom këram njëkk koo dee bàyyi boo ma xam ne bis ba mu dee dañ koy rey lakkaale waaw kon na seet nu mu def mooy dóom boobu ñuy def ci bitil nga xam ne dóomu nit ki lañ fay def dañ koy boole waaye dóomu soxna si ñu boole ko ci benn bitil yóbbu ca armée la ku ñëw xool sa bitéelu mbokk ñu ne la bitéel bii sa diw fi la nekkoon wala sa diw fi la nekkoon alxadaaratul arabiya arab yi ñoom moom dañoo dajale woon li xadaaraat yépp am moo tax suñu borom génne fa yonent bi nag ñoom yoruñu woon benn dañoo dajale woon la la Perse yor la Grèce yor la chinois yi yor ci ci xeet yi doye di jigéen ba ci li ci hindi yi yor yooyu yëpp ñu dajale ko ci seen civilisation ñoom arabe yi moom moom dañ daa wax naan kee ñu nañ koy rey bi ñu doon liir moom la alxuraan naan wa isal mawudat su ilat bi ay sanbin xutilat ëllëg yoomal xiyaam mboole ñu rayoon ci liiru jigéen dana dekki laaj bi tax ngeen rayoon
ñoom moom ñoo gënoon a doye di jigéen ñëpp
daanañ dondu jigéen ñi dondoo alal bu ñuy teg alal ji tegaale soxna yi saamaale ko ñu donduwaale ko taaw bu góor daana xool soxna yi bàyyam ci ci neex mu takk ko loolu yàlla naan wala tankihu maa nakaha abaakum bu leen bàyyi leen yéen góor ñi yéen doom yi ngeen di takk soxna yi nga xam ne seen bàyyi ñoo ko takkoon daanañ force jigéen ci njaalo moom la yàlla naan wala tukrihu fatayaatikum alal bigaa bàyyi leen di force jigéen ñi ci di leen def loolu bon xadaaraat yooyu bi ñu ñëwee yooyu yëpp day mel ne lislaam bi mu ñëwee dafa tere yooyu yëpp nag diine ji nag jigéen am ci wàll gu rëy rëy muy diine lislaam muy ñaareelu tomb bi jox ko ay cër yu mag ne jigéen ni góor di donde ci alal ji noonu la amee droit dond ni góor góor di dunde noonu la am droit dund mboolem martaba bu góor di am ci jaamu yàlla jigéen mën na ko am ba mu desub yonent du doonub yonent jàppal ne jigéen dana doon wàll yi awliya yi doon jigéen bari nañ mu jox ay teraanga yu bari lu bari lu taxaw ci lislaam soxna yi la ba léegi dañ koy fàtt dañ ko war a fàttali nag ki njëkk a gëm ci lislaam jigéen la yonent bi moom kenn du ko wax numéro un ndax moom moo indi lislaam bi bu ñuy lim ca xadija la ñuy tàmbalee bu ñu doon lim tey liste ju liste jullit yi ci àddina bi numéro un ba jigéen lay doon sayyidatuna xadija moo tax jigéen lu mu bokk day barkeel lu mu amul day géey Xadija moo njëkk a gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alali jigéen moo njëkk a dugg ci lislaam fekk booba milliardaire la woon wala millionnaire ku ne ñëw na fa bëgg ko Xadija ku ne bis bu set mu ñëw mu gis kilifa bu ñëw ne ko da koo bëgg a denc soxna mu gàntal ko moom moo dem ba gis ci biir ñi koy liggéeyal mu ne xale bu góor bi damaa neex damaa bëgg ngeen wax ma moom mooy kan lijjanti ko bañ wax ko ki mu doon mu waxal ko boppam ne daa bëgg moom mu denc ko sallallahu alayhi wa sallam gëstu yi kan mooy xadija ba gis moom ci moom makaarima axlaaq mu nangul ko alali jigéen moo njëkk a dugg ci lislaam dereeti jigéen moo njëkk a tuuru ci lislaam ay bañkat lañ yàgg a doon ba yëfee mettee ba nga xamee ne bi ñuy lim jullit yi ci ay baaraam lañ leen lim jigéen ju am jom ku mën a bañ ku dëggu ku ñaan soxna Sumayya moom la Abu Jahl yeew ca péncu Màkka ma ñëpp di ko seetaan nit ñi naan waa kii moo ñàkk fayda du wax du wax liñ koy wax loo rek ñu bàyyi ko mu naan laa ilaha illa allah muhammadun rasulullah yonent bi ñëw taxaw xool ko ay rongoñam di wadd ci mënu ci dara mu naan leen sabran yaa ala yaasir fa inna mawxidakumul janna te ngeen a muñ rek suñ borom war na ma seeni pale ci àjjana gis naa ko soxna si naan laa ilaha illallah muhammadun rasulullah abo jahlin mujj dem ba néeg génn xeej boo xam ne ci geer yi mag yi rek lañ koy lañ koy lañ koy génne mu riiru wat daw wut si soxna si ba ci awaraam mu jam ko ci ba mu génnaat ci bitti deret jooju moo njëkk a tuuru ci lislaam muy soxna sumayya yaayu amaar soxna yaasir nee nañ jigéen am nañ ci at mi benn bis bu ñu leen jagleel 8 mars yàlla am na saar wu ñu leen jagleel woo xam ne ilaa yow mi diin du du génn ci alxuraan ci xanaa looloo gën a foor benn bis moom ci téeréem bi saar wa gën a gudd ci saar yi la leen tudde tuddewu leen saaru ñetti aaya de wala saaru ñaare aaya saar woo xam ne bu ñu nee bii moo gën a gudd ci alxuraan wiyee ci topp muy sóoratu nisaa yi mboolem luy seeni àq mu wax ko mboolem luy seen droit mu wax ko fa mu mboolem luy seen i warteef mu wax ko fa tudd leen saar wi jàngalekat bi gënoon a siiw ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam jigéen la woon sayyidatuna Aïcha jàngalekat bi gënoon a bi gënoon a siiw bi ëppoon xam-xam bi ëppoon pédagogie bi gënoon a xam lu jëm ci wàllu kër jigéen la woon muy sayyidatuna Aïcha yonent bi sax moo taxaw seereel Aïcha ab xam-xamam ne xusu nisfa diinakum an haasihi l umayra genn wàllu diina gi mi ngi ci soxna si barab bi gën a tedd ci kaw suuf nga xam ne ne nañ àjjana la bàyyi ko néegub jigéen la muy fa yonent bi tëdd borom xam-xam sax ñu ngi naan rawdatu nabi ashrafu min al kaabati wa afdalu min al xarf barabu yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo gën a yéene kaaba gi moo gën a tedd kaaba gi am na ñu ne déedéet moo gën a tedd aras néegub jigéen la néeg sayyidatuna Aïcha radiyallahu ta'ala anha ku tedd ci ci gën ci li yàlla bind sallallahu alayhi wasallam ci loxoy jigéen la wàcce liggéey Aïcha nee na am naa ay jagle yoo xam ne nii ba addunay tukki fu ma dem di ko ndamoo ñu ne ko lan la mu ne samay loxo la wàcce liggéey ñu ne ko lan la mu ne socc ba mujj soccoo maa ko maa ko maa ko maa ko téye socc ko ba mu ba mu dëgër ba mu mën a socc mu soccoo ko maanaam sama tooyiti gémmiñ moo mujj laal tooyiti gémmiñam ñetteel bi lan la mu ne ci sama néeg bii lañ ko denc daana ndamoo loolu rawdatu nabi ashrafu min al kaabati wa min al arsh nee nañ aw ab pàkk la ci àjjana barab bi nee nañ ab pàkk la ci àjjana loolu yëfi jigéen la ba tey alxuraan ju tedd ji ñuy jàng photocopie ba original ba original bi ñu yoroon jigéen moo ko yoroon loolu dong bu ngeen amoon loolu rek doy na saraf Seydina Ousmane bi mu ñëwee ci ay jamonoom bis alxuraan yi bari kaamil yi bari mu ne daal mu joxe benn loi benn ci daal ne damaa bëgg daal léegi kaamil bi soxna Afsa yor nga xam ne mi ngi ko jële ci papaam Omar Omar jële ko ci Abu Bakrin Abu Bakrin jële ko ci yonent bi ca tey mi ngi ci loxoy Sayyidatuna Afsa kaamil boobu man jàpp naa ne mooy bi gën a wér damaa bëggoon ñu sukkandiku ci boobu mu ñëw Sayyidatuna Afsa ne ko damaa bëgg nga jox ma sa photo sa kaamil bi ma photocopier ko tasaare ko ci àddina bi ku yoraat beneen alxuraan bu bokkut sa alxuraan ñu lakk Afsa ne ko xalaatuma ko kaamil bu tedd bii ma jëlee ci sama baay Seydina Omar mu jëlee ko ci Seydina Abu Bakrin mu jëlee ko ci rasulullahi ma di la ko jox Ousmane giñal ko ci yàlla ne su ma paree dama la koy dellowaat te booba Ousmane mooy xalifa jullit yi mu gis ne Ousmane mii caaxaanu mu jox ko kaamil ba Seydina Ousmane photocopie kaamil boobu ñu bindaat ko mu joxe ndigal ku yor beneen alxuraan bur alxuraan ji Hafsa yor nañ ko lakk ñu jëfe ndigal li ba tey ñii kaamil bi ñuy jàngee mooy kaamilu Ousmane ba kaamilu Hafsa ba ci soxna la bàyyi ko jigéen yàgg naa baax lislaam ji lépp jigéen mënoo tudd ci lislaam dara te mënoo cee waxaat loo xam ne nii yëfi jigéen la booba ba tey nag jigéen ngi defi jaloore martaba bi nga xam ne moo nekk ci suufu yonent muy siddiqiya nga xam ne yonent rek ko féete kaw jigéen doon na ko yàlla seeral na ko ne jigéen yoo xam ne nee na kii moom la yore muy sayyidatuna Maryama yaayu sayyidina Isa wa ummuhu siddiqa seen boroom a ko wax ndeyam day ab siddiqa la nga xam ne martaba boobu Abu Bakar li muy rëy rëy rëy rëy rëy paasiwul martaba boobu ab siddiq jigéen dana ko doon yonent rek la du doon booba ba tey jigéen ñu fiy jaar di defi jaloore ci lislaam